ki nga xamante ni na ko yàlla def neexu ko mu mel ni loolu dafa am lu ma ci déggee dafa am sama benn xarit bu ma doon waxtaanal fan yi waaye loolu dama koy faral di def en privé damay waxtaan lu bëri di nettali ay xisa Serigne Saliou waaye saa su ma ko defee mu ni ma waaye yow danga nga war léeg-léeg bu ci biir waxtaan wi ak eh, kii nga koy yaatal ba nit ñëpp tamit di ci mën a eh, jariñu ndaxte xam nañ ni nitu yàlla yi eh, ay jàngalekat lañ te lepp luñu wax njariñ la ci ñi koy déglu ba loolu mo waral dama euh sëriñ bi am lu mu doon waxanteeg ben nit xamna koku sax duma tuddu turam waye dafa bokkon ci ñi nga xamanteni ni leg euh bu ñu tuddee ku sant mbacké xañ na way bi len sa borom jox xañ du len fa tek ben bis mu ñew tok ak Serigne saliw Serigne bi laj ko ni ko mbaa bokkoo ci ñi nga xamanteni dañ nan Serigne Touba amul mbokk mu ni ko dede te neena na ci la bokk Serigne bi ni ko bu fekke ni ci nga bokk nang ko bayyi ndax sa borom dogal na digam ak aw nit ñu mbokko te kep ku weddi dogalu yalla weddi nga lolé nak da fay depo ak wax ji Serigne bi wax ni Euh, su fekkente ni nanguwoo li ko yàlla def dafay mel ni da nga weddi dogalu yàlla te ku weddi dogalu yàlla weddi nga yàlla loolu moom dama ci bëggoon a euh, joxe tuuti rek sama participation ci waxtaan woowu nga xam ni ñun ñëpp mun nañ koo jariñoo ndaxte daje yi dañ koy waajal ngir saytu xool fi liggéey bi toll jëmale ci li état bi seqoon ak comité d'organisation bi waaye mën nañ cee jariñu ñaari yoon ndax mën nañ cee jariñu ci li jëm ci waajaayu waajtaayu màggal gi waaye mën nañ cee jariñoo tamit ci fàttala fàttalekonte li nga xamante ni mooy jikko yu rafet yi ak xalaat yu rafet yi nga xamante ni loolu bokkoon na ci li taxoon sëriñ bi sanc dëkk bi bu loolu weesoo bu ma ñëwaatee ci wàllu euh, réalisation yi gouverneur wax na ko léegi li ñu waxante woon ci wàllu liggéey jëmale ko ci dëkk bi muy waajtaayu màggal gi téeméer boo jël liñ ci def ëpp na juróom ñeent fukk ak juróom benn nga xam ni xañ na li ci des lu néew la fi ak ñuy jëm ci màggal gi loolu nag dama ci euh, profito wax gouverneur ni li DG OFOR wax jëmale ko ci Daaru Xuddoos mooy forage boobu nga xamante ni mettre nañ ko en service xañ na li des ci màggal gi bariwul ñetti fan la waaye nañu gën a taxaw seetlu gën a baral tamit jéego yi suba ak ginnaaw suba ñu xool fan lañ toll ci impact bi nga xamante ni ñu ngi koy xaar ci biir Daaru Xuddoos am na leneen loo xamante ni tamit gouverneur wax na ko léegi mu jëm ci wàllu clé autoroute yi mais loolu jot naa ci waxtaan ak euh, directeur général Ageroute Ibrahima Ndiaye laata may ñëw mais solution tamit feeñ na ci ndaxte li nga xamante ni mooy solution bi mooy euh, concessionnaire bi mooy ki ñu jox autorite bi ngir mu gérer ko dañ koo boole léegi ak sapeur yi nga xamante ni fépp fu ñu soxla clé dañuy woote ci saa saase ñu dem ubbil leen ko loolu it dañoo jàppoon nii dina indi tuuti jafe-jafe waaye ginnaaw bi biñ ci waxtaanee ak ki nga xamante ni moo jiite Ageroute solution feeñ na ci ba mujj nañ ci am euh, tawféex li nga xamante ni mooy wàllu ndox mi sëñ Ousmane wax na ko xam naa ndox dafa tëddee ñaari euh, dafay taxawee ñaari taxawaayu ñaari tànk benn bi mooy ndox mi nga xamante ni dañ koy soxla ngir jëfandikoo ko waaye beneen bi mooy dañu nekk ci nawet ndox mi bëri lool Touba jaaxal nit ñi lool li ko waral nag ñaari mbir la benn bi mooy napp bi xam nañ ni day yéeg te gouverneur fàttali ko fàttali na ko léegi am na ñaar fukki forage yoo xam ne président santane na ñu def ko fii ba fukki yéeg juróom-benn ñu ngi liggéey beneen bi mooy mu ñu nekk nag ci diggu nawet napp bi ak nawet bi la. Nabi, bi liggéey bi ci waron def def nañ ko ci nawet bet bi mu indé ndox mi ñew te ku ne xam na waron ndox xewal la euh, li nga xamanteni waron nañ ko am ci taxaway kérok biñu défé réunion bi ci Dakar bañ ca juggé dama ni général Morsek niko yow mom légui sa sa quartier général dang koy dem defi Touba donc ñaari fan a ngi nii moom fii la nek lepp lo xamanteni ni won nako ci matériel ak ci moto pompe ak pompe indi nañ ko fi indi fi tamit juróom fukki hydrocureur lolo taxone ngeen gis Euh, mbedd yu yaatu yëpp ñu manqué ko électropompe yi nga xamante ni tamit doyuloon ñu yokk ci ñaar fukk ak juróom yoo xamante ni capacité bi dafa ngand looloo tax ñu manqué ndox mi ba yoon yi ñu mënul woon a jaar ñu jaar ko loolu mooy li nga xamante ni namoon nañ koo def ci ndigalu président de la république saafara bala ñu yegg ci màggal gi te suñ borom defal nañ ci jàmm ba bis bu ne bu ñu xëyee ak bu ñuy tëdd dinañ def point bi dinañ xool fan lañ toll ci liggéey bi li général Morsek dima indil toujours comme xibar moy que ni jéego yi ci def kawena na sax suñu njort lolu moy li nga xamanteni ni ko wax serigne bi di len sante bu baax nak ci yaatal bi ak ci taxaw bi ak ci jokkoo bi nga xamanteni ñing koy def sa su nek ci liggey bi. lolu daan moo doon kaddu yi di ñaan yalla ñetti fan yi ñu dox suñu diggante ak magal 4 yoyu dess ci engagement yi ñu fexé ko ba réaliser ko ci.